groupe de communication Université Cheikh Ahmadou Bamba 103.5 FM, la radio citoyenne UCAB FM, nous sommes ici à Touba Ndam xibaar yi fii ci UCAB FM mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu dal leen jàmm ci rajo UCAB rajo université Cheikh Ahmadou Bamba ñu ngi fii ci ndaam daaru alimul xabiir xibaaru diggu bëccëg bi la gën a fees ci xibaar yi bokk na ca tiis wu nekk ci dëkk bu sell bi di Touba démb ak tey mu wàcc liggéey Serigne Modou Mamoun Niang doonoon ko ràññewoon loolu ab taxawaayam tey ji lañu ko denc lépp itam tey lañu ko yemale lu jëm ci wàllu wala nag mbooloo mu takku ña nga ca kër ga danañ fa jokk ak Cheikh Amar waaye itam danañ fa taataan lenn nga xam ne kon jamono ji ña nga ca kër ga naka noonu danoon wax rek soxal li nga xam ne kon moom moo wàllu ko nduloog lëndamaay ba fa ne loolu nag ca final lu football bu doon ko am tuddee ko nag ne kon mooy député Dior Mbengue patoxlu jàmbat lu ni mel ne nag jamono ji bëgg nañu am ca saafara mel ne xelang cee bëgg daal ndax kii di Saer Diop ma ko doon gunge yore wàllu ko leeraay bi ci uh, lii di ayem doon sakkanal courant bi neen nag danañ ko ca danañ ci dikk na mu a yaatu ci biir jotaay ki xibaar yi uh, fes naag doon jotaay caada bu Sénégal dañu koy amal at mu jot ren ji nag Kaffrine la tànn ngir amale ko foofu waaye njaareem ña ngay waaj ngir mën caa tax nag ñuy taal loxoy kilifa yi ngir ñu gën leen dooleel ci wàllum koom ñaari million la jox uh, délégation bu ne wu lool bëgg nañu gën leen caa taxaw ndaje mun te doon amal ngir waajal ko dinañ ko gën a yaatal jàngatu baay Cheikh Cheikh Amar lañ ci àndal li gën a fës yéene kaay na ma këmal jotaay bi ines tuuti dikkee ci faram fàcce gi ndeem soob na suñu borom yi fii si UCAB Sayar Mbay ci àddukaay gi machine ba cheikh bi yéen askan ci déglu bi rajo ICAP 103.5 di téeméer ak ñett yu tombal juróom ngeen ñuy déglu ci bande FM bi internet bi ñetti w point fm point wala ñetti w point itv net tey di altine di ñaari fan ci weeru tubaab di janvier atum 2022 dëppoo ak juróom-ñeenti fan ci weeru wolof di maamu koor ci atum junne ñeenti téeméer ak ñeent fukk ñeent ci gàddaay gi waxtu yi ñu ngi ci 14h32 ñaari waxtu ci bëccëg fanweer ak ñaari simili moo boot ci kawam xibaaru digg bëccëg bi Groupe de communication. Université Cheikh Ahmadou Bamba. mbokk yi dal leen jàmm bi mooy jotaay xibaar bu njëkk ci atum 2023 doon at mu yeesu ci nasaraan doon rek kon euh, jotaay xibaar bi ci njëkk ci rajo UCAB 103.5 ñu koy door rek tiis doon. wàcc liggéey ak moo Modou Mamoun Niang doonoon ko ràññewoon nanu lool ab taxawaayam ci li nga xam kon moom moo di yoon wi tax nag eh, jamono ji ñu nekk ci dëj ni tey ji nag kon la nu ko jébbal suñu borom waaye tam ñaan geeg lépp kon ñu di ko yàmmale ni ki tey jii tax nag mbooloo mu takko takku ña nga ca kër ga eh, foofe ca gaar bu ndaw loole nag bokk na ci ñi nga xam ne ko ñoo di kilifa yëf eh, teew Serigne Moustapha Lakram moom nag itam yëkkati ay kàddu yu seede jëme ko ci way bi doon Serigne Modou Mamoun Mamoun Niang kàddu seede yu yëkkati na ko fa Serigne lakk uh, Lakram ñu teewlu ko ci micro Cheikh Amar ak Fallou Galass li ñu ñu fa teewal. maa ngi wax inna lillahi wa inna ilayhi rajiun mat na ko nag ndax doomi yoon wi jóge na fi boroom xam-xamu yoon wi jóge na fi ci njëkk am xam-xam ci yoon wi ci la ndax daanaka am na santa ans bu dee hijriya bu lool loolu yi defe naa ñaara ko manqué euh, defe naa 26 euh, la waaw kon tey war naa am 98 ans bu dee jiree am na 101 daanaka dund ko nag ci ak nite ak xam-xam ba tax na ñi jàng ni ginnaaw bi ci seen gannaaw ñoom ñi fi ne woon ku ne war na koo sant sa xam-xam ngir xam-xam bi mu laloo woon ak taalu bi gi mu yoroon te lépp nag sëñ Abdou Lahad euh, ginnaaw bi ko nampee sëñ Afe namp ko ci Serigne Fallilou sëñ Abdou Lahad mottali ci lu baree baree bare kon buñ fi teewee ak yéen euh, nga tàllal ma micro bi dana xat lool ndax ni muy doxe waaye yaakaar naa sama xel du gëlëm ba ba teemaa wax li ma bëgg a wax ab jullit la moom nattable wuñ loolu wet yépp sëñ Touba ak sëñ bu soobee nga jàpp ne nag kon mm, euh, ki fi jóge bu bu ñëpp xamoon bu ko ñëpp xamoon du demee nii sax waaw ndax ñëppay da wuti ci moom waaye euh, soxmaat dafay yam ndox moom dëkkal waaye nit la koo xam ne nii daal man sama formation man te xam nga man toujours damay gëm li ma jaar waaw ci ñi ci ñi ci ñi ma doon jàppale ñi ma doon teete ñi teema tarxiis alaaji Modou Mamoun Niang bokk na ci ndax biñ may booleeg sëñ Muntaxa mi ngi teew keroog ba may tàggoo moom di ñibbi ma nga fa te lépp moo ma seere woon sama jànge xam-xam bambuk sama dellu si sama dem bul kayal sama lépp kero kero biñ may jox kaamilu kaamilu sëñ jëmb moo ko teg sama loxo kero bi ma la 14 heures 1974 keroog bi may jox wirdu Maxoos alaaji Moodu maa mun na ko moom moo ma teete man moo seete sama murid man murid laa boo xam ne nii dama am lijaasa kon nag maa ngi ñaan yàlla eh, njabootam gi mu fi bàyyi yàlla gën leen a sàmm gën leen a aar ba ba ñu am at yu tol na yooyu wala waaye lu ci mën a doon rek at yuñ mën a am yàlla na ànd ak ngërëmal Serigne Touba eh, loolu moo tax du ma mën a sori ndax ñaari wax yi rofaloo waaye li gën a wér daal mooy ñàkk yoonu murit ñàkk na koo xam ne eh, ñàkkees na nit nii ñu ko doxale nii bu ko Touba gépp xamoon ñëppay wàbbu wut si fii sax waaw ndax ku ko siyaare ngir sëñ Touba fekk sëñ Touba kese la ku ko siyaare ci taalube sëñ Touba ak taalube kese la ku ci xam-xam laf na téere yi kon nag noo ngi leen di sant yéen tam noo ngi ñaan yàlla yàlla gën leen a sàmm gën leen dër yàlla gëjal fi lii eh, te nun nu fas yéenee jàngat ci moom lim nekkoon da daw amu ci woon complet ab taalibe la woon murid yëpp jaajuwaat yi nag fas yéene nekk taalibe te xam ne luñ defut lu dul ay taalibe rek perte nañ waaw te amuñu personnalité kuy jéem a dar darlu amook eh, taalube boo defee ne da ngay yokk it yaa ngi daaneel sa bopp loolu daal maa ngi sant bu baax di gërëmaat Cheikh Mouhamadoul Mountakha mi nga xam ne moo yemale tey bés bi te mu tombeek moom moom it yàlla gën ko fee bàyyi ba mu àggalee lépp ci yoon wi te yàlla def jàmm ci kër gi te gëjal fi loolu doon na kàddu yi seede Serigne Moustapha Lakram bokk na ci kilifa yi fa teew itam njiital Hizbut Tarqiyyah Serigne Youssou Diop ma nga fa moom itam kàddu yi seede yëkkati na ko fa ñu teewlu ko. sant te di ko ziar bokk taalibe yëpp waaye xam nañ ne euh, murid saadix boo xam ne léppam daf ko jox Sëñ Tuubaa moo fi bàyyi ko kooku nag dañ koy ñee waaw dañ ndax ñaan yi ñaan ci moom di ko ñaanal. day wëlbati ko di faj suñu aajo di defar suñuy mbir. waaye moom dolli ko dara sax du yomb ndax sëñ Tuubaa euh, kasiran yàlla aziman yàlla ci lay jëflanteek ak murid saalix waaw ndax sëñ suñ borom da koo jox te desewul dara moom sëñ Tuubaa lépp la matale euh, di euh, tamit profité ci occasion bi di ziarewaat sama jëwriñ ja sama kilifa gi sëñ aatu ndax daf ma amoon lu ma yombalal sëñ Abdou moo ko santoon ne ko moolu diiwaanu woloom mi diini muy lu mel ni yu feq yeeg nga xam ne ay tasu siraar euh, naxaju euh, jawhara nafis ak lu mel ni euh, mooy bul xuddoos yeneen yi nga xam ne téere tasawuf la ak mu layin ak mu nawir yooyu yëpp bi mu tolloo ci di ko móol ak téere am ndax yi lu mel ni jës bu mooy bu muqaddimaat ak miimiya ak man yu ci rasool muy midaad yi ba mu koy móol Euh, liggéey bi mu liggéey loo ko sëriñ Sambay sëriñ Sambay àndoon ko ak daara ji muy daara is bu tarxee tey waaye daayira étudiant murid la tuddoon nga xam ne daan xëy si bu set man itam ma bokkoon ci ñi nga xam ne sëriñ Atou daf ñoo féetale woon may tàppe lépp lu luñ ciy daan def maa ko doon ànd ak euh, koo xam ne moom la ñuy wax sëñ Fallu euh, di doomu sëñ Modou Mbacke Galongel moom tamit daan na bokk ci liggéey bi bañ tolloo ci seen sëñ Ablaat sant sëñ Modou Mamou Niang mu dem Maroc ngir taxawu ko mool bi boobu daf ko wax ne ko sëñ Atou la boole kenn ñaar la ko jëkk booleel sax ndax boobu moo tolloog masaalik bi muy sëñ Malick Aïssi ak sëñ Moutala Mbuub waaye ñooñu bañ demee taxul ñu yàgg fa ñëwaat bi ñëwaatee nag sëñ Modou Mamoun war a dem ñu àggale liggéey bi yëpp nag ak téere yooyu euh, sëñ Atou ne man may dem waaye man sama yoon woowu moo gën a gudd ndax def naa fa juróom-ñeenti weer ak 88 lañ fa lañ dem ba bi Sëñ Abdou Lahad di di làqu ci saayir boobu fekk nañu fa mhm. nga xam ne man mii keroog maa ko yëgal sëñ Modou Mama Niang ndax yàlla dogal na boobu maa doon dongo li mu àndandoo moom di segg café di taxawu lépp lu jëm ci euh, bagage su kër gi ak loo xam ne mooy taxawu ko ndax àndutoon ak keneen koo xam ne mën na ko defal loolu te mu doon mag waaye ba muy def loolu ma ko booleeg di xëy ci imprimerie ba bis bu set di xool liggéey bi fu mu toll bu guddee it may taxaw di xoolaat euh, lu bari ci ni liggéey bi gars yi def ndax baax na am déet waaye nag ma koy sant ndax diggante boobu war naa mat juróom-ñetti weer yoo xam ne def na ci man loo xam ne wax dëgg yàlla nekkul woon ci man waaw ci ndax moom dafa yàgg ci keppaaru waa Kër Sëñ Tuubaa euh, ñu yar ko te ku ne xam ne ne si Modou Mamoun boo ko waxee rek moo njabootu sëñ fàllu jenn jëmm lañu du ñu ñaar euh, Touba gépp la bokkal. waaye tamit waa kër sëñ Touba yëpp la liggéeyal ba am seen garam. loolu mooy moom ndax bu wanee sëñ Modou Mamoun ak sëñ Soyebu. ndax mos naa ko fay defal war sax bis bu ne ma yow bu ma delloo dinaa nangu ci sëñ aatu booy laak sëñ Soyebu nga di ko nga di ko nga di ko wargaal ndax ndax moom nii la koy bëggee. ndax boobu euh, gone yi fii ni ñuy wargaal dañ koy baxal. mu ne ma loolu kenn du ko def. <laughs> kon loolu lépp daal di may xamal loo xam ndax koo gone Ndakaaru koo xam ne danaan trois heures moo la daan wax mm. lëwal ak yooyu moom mu ñëw jàngal la ni ñuy war gaa ci keppaaru Sëñ Tuubaa mm. loolu rek mënu ma ko fay waaw loolu moom mën nañ ko fas euh, fas lu toll ni xattal karimu jumlata xataaya anhum wa saaxala mun ataaya kon mu ngoog lii daal moom amul ma payam di ko ziar njabootam gépp nag euh, rakkam euh, tàmbalee ko ci sëñ ba waaye tamit di ko di ko di ko di ko di ko jaatee xaadim mi nga xam ne moom sama lépp la waaw euh, di ko jaal jaal itam njabootu képp waaw doomam sëñ sëñ léegi bi ma ko gisee euh, sëñ Alaaji Fàllu mu ne ma mu ne ma yow moom ñoo bokk wayjur waaye yaay magum kër gi ma ne ko mu ci àdduna <laughs> maa ngi sa ginnaaw kon kon nii daal la demee ñoo ñoo ngi dellu daara ja waaye jóguñu fii ndax man dafa ma fekkoon ci yoon sax ma nekk soow waaye damaa wëlbatiku fi saas laa wëlbatiku euh, lu fi mot a def it duñ tàggu kenn. dëgg la jàpp ne ñu def ñoo war. loolu doon euh, kàddu yi nga xam ne kon doon na ko ca yëkkati muy kàddu yi seede ki nga xam ne kon moom moo di Serigne Youssou Diop mi jiite daara is Hizbut Tarqiyyah dañ dem foofee ca kër ga fekk fa kii di euh, Cheikh Amar Cheikh maa ngi lay nuyu. Pape ñu ah, jamono ji yaa ngi foofu kon ci kër gi mu mel ne kon euh, denc nañ pare lépp itam tey lanu ko fas yéene yamale lan lañ mën a jàppaat foofu. waaw loolu Pape mooy li am ci ndigalal euh, Serigne Mountakha xalif général des Mourides ñu di ko ñaanal mu yàgg fi lool te ànd ak wér moom moo wax ne nañu yemale lépp euh, tey. Euh, boobee la ko denc nag euh, bàqee daanaka waxtu wi ñu waxoon ne onze heures bi mu jotee daanaka ñi ñi doon xaar onze heures sax biñ ñëwee fekk nañ euh, ñu dem bàqee loolu nag dafay feeñ ci li nga xam ne noonu la sëñ bi doon dundee ci sàmmonteeg ak lépp loo xam ne nii rek warteef lam la rawatina ci wàllu yoon ak tegu ci yoon bi ñu koy dencit mbooloo mu takku pap loolu moom xam naa ne Euh, njabootu Sëñ Tuubaa gi képp ñu bi ñu dellu see fii ci kër gi dégg nga kàddu seede yi nga xam ne am na yeneen yoo xam ne xëy na jotaguñ ko incha allah sëñ dan euh, kenn ku ci nekk rek bu waxee da ngay xam ne yoon wi ñàkk na kenn koo xam ne ni ci keno yi la bokkoon ndax ñëpp maase nañ ànd ci xam-xamam ñëpp maase nañ ànd ci taalibeem ñëpp man maase nañ ànd ci njullitam ñëpp maase nañ àndit ci taxawu njabootam defar leen ba ñoom ñëpp ñu defaru kenn ku ci nekk fiñ toll nii kàngam la fa mu nekk jàng ba ne ar yaru boole ci te terewu ko mbooleem lu mu daan liggéeyal sëriñ Touba di ko ànd ak ki fi nekkal Serigne Touba dara sooxewu ci woon Pape Seye di dem tey loolu lay symboliser Serigne Fallou Umar Ñang bokk ci magi taalibe yi daf ma wax ne Cheikh kàggu de bu kayit yi tasaaroo danañ ko mën a dajaale waaye kàggu bu lakkee moom xalaat nee ma sëñ Modou Mamoun ñii kàgg kàggu gu làkk la daanaka mën nañ ko méngale ak wax ñi nga xam ne moom la sëriñ Moustapha moom sëriñ Abdou Karam wax moom moo wax waaye ñi nga xam ne daf leen a taxaw ci seen wàllu njàng ci wàllu xam-xam bëri nañu léegi rek mu ngi nettali bés biñ koy indi ci kër sëriñ te sëriñ Modou Mamoun ña ngi ñu toog na mu jëflante woon ak moom ci kanamu Cheikh Abdou Lahad Mbacké jàmbaaru lislaam li nga xam ne noonu la ko sëñ bi daan sante ay liggéey pap kooku tey mu ne bu ko nit ñi xamoon wallaay dinañ ko nabu si waaye nag xam nga nit ñi la sëñ Muntaxa waxoon rek nañuy xam li xew te boo ñëwee tey ci këram ak ci barab bi nga xam ne mooy néegam bi nga xam ne ci la wàccee pap ci nawet bi rek doon na fi senn ba doomam ju baax ji sëñ jiili moo ko jël yóbbu ko këram mu nekk fa ak soxna lay wan rek ki mu doonoon moom moom du boppam moo ko yitteloon du këram moo ko yitteloon mënoon naa koo terrasse mënoon na ko waaye kër gaa ngi nii nañ ko ko bàyyee loon noonu la ko bàyyee tey fekki Serigne Touba kooku mooy Serigne Modou Mamoune Niang Pape mbooloo mi nag ba tey njabootu Serigne Touba gépp ngi ñëw léegi la fi sëñ Moustapha moom Serigne Abdoul Khadre mu jógee Serigne Abibou Serigne Xabaan Serigne Mourtala moom Serigne Fallou njabootu Serigne Fallou gi ñoom ñëpp Serigne Cheikh Awa Balla maanaam daal mën naa la wax ne it aussi Sénégal ñoo daje fii Pape ñëpp a ngi fi ñëw. di siyaare si njabootam gi ñoom ñëpp ñu ngi fii ci bâche bi gis bu taraxee aussi dégg nga Youssou Diop dafa am fu mu jaar ak Serigne Modou Mamoune Niang moo tax ñoom xaaruñ kenn ku lu ñu war a def fii ci bés bi Serigne Mountakha aussi délégation bi fi yabal te ba tey sëñ Moustapha la karam mi noonu noonu toog Pape ñuy yëkkati ay kàddu seede rek yaakaar naa ne daal ñu ngi koy ñaanal sunu borom wane la ko ak Serigne Touba waaye njabootam gi. te ñu baax lool sëñ Cheikh Mbacke ñan nekk ci bopp bi sunu borom guddal seen fan te wéral leen ñu ngi wax sax ci âge yi dégg nga ko bu dee ci âge euh, bii ñuy wax nii rek comme calendrier grégorien bi ñu ngi koy jàpp ay quatre-vingt-quatorze quatre-vingt-quinze mais nit ñi jàpp nañ ne téeméer am na ko ndax koo xam ne doomu Maam moo Jaara mag yi Sëriñ Tuubaa mooy sa wajur wu jigéen koo xam ne sa baay magu euh, Sëriñ Fallu la kooku pap yaakaar naa ne yàquwul yàlla na ko yàlla euh, li métti rek mooy yu mel ni euh, niñ ci waroon a profité ci yoon ba nga xam ne génération yi pap xamuñu ko dañ koy umpale pap yooyu nag lu ñu war di bàyyiwaat xel la ci situation yu mel nii kàggu kàggu dëgg dëgg dëgg dëgg pap moom moo moo moo moo dem mi sëñ Modou Mamoun Niang Pape Saer Mbaye jërëjëf Alaaji Cheikh ñu leen di masu di ko jaal di ko jaal mboolem umma islamique bi rawatina yoonu murit kooke di Serigne Modou Mamoun Niang mi nga xam ne moo wàccub liggéey kon noonu ko Cheikh Amar waxee tey ji kon ci ndigal xalif général di Mourid Serigne Mountakha Serigne Bassirou lépp kon tey lañu ko yemale onze heures lañu ko denc ca Baqiya jamono ji ñuy àddu génn di teewlu ñu ngi amal ñaan gi foofee ca këram nga nekk ca gaar bu ndaw ca ñaan nga sax ca la ñuy desandi wéy yéen ci kàddu seede yi keneen ko ci yëkkatay seede di Serigne Cheikh Jaxate euh, moom Serigne Abdou Jaxate moom Serigne Cheikh Jaxate euh, moom nag euh, yëkkati ci ay kàddu yu ci ki xam ne mooy Serigne Modou Mamoun Niang ay kàddu am ñu teewlu ko. li ñuy wax rek inna lillahi wa inna ilayhi rajiun di taasu ci barkeem ndax sëriñ Modou Mamoun day mbokkum ñëpp askan wépp wet goo fi jeex mu fees fa dell bi ci des sam ak taalibeem muur nag lépp muur bokk googu muy taalibeem Serigne Touba dib sëtam doon xaritu wala réew doomi Serigne Touba yëpp rawatina nag Cheikh Amadou Fadal ak Cheikh Abdou ñu mën a seede ci moom rek baat yoo xam ne ñi koy dégg ak man mi koy wax ñoo ko xamandoo ndax moom li gëm ak Serigne Abdou dafay lu yàgg jiitu na xilaafa ji ma nga dale woon ci Serigne Xaafi waajuram suñu yaa fi yor baraag bi suñu yëpp di ko siyaare si suñu yaa fi jël loxob suñ Moodu Maamun teg ko ci suñu ab loxob suñu Abdu Lahat boole leen kon suñu Abdu Lahat suñ Moodu Maamun ndigal la amoon ci waajuram ci moom suñu Abdu Lahat fedd li kuréel la amoon ci waajuram woowu di suñu yaa fi mu jàppale lool nag sëriñ bi te li doon yan bi ko sëriñ Tuubaa yenoon ndax Alaaji Moodu Maamun mooy njëkk ci kër gi ba mu fi amakutum néeg booba ñu ngi ci kër gële fi Serigne Saliou nekk ci kër gu màggat gi waaye bu jullee fajar ci jumaa ji day xëy si wala mu faa jóge xaaju guddi lay doon ku la yow mi amul lu sëriñ bi wax te fekkiwu wala mu koo tontu dana ko kobos mu joxe ci xalaatam foofu la doy loo gi euh, mu nekk itam li ñuy wax modérateur ak kuy régler régulateur ndax xilaafa day lu diis te bokk yi nga xam ne dañoo ñëw te bokk ci yoon wi te bokk ci sëñ bi ku ñëw fekk sëriñ bi fatu walla mu xat bu bu yemee ci ñoo xam ne ñu xàmmeewul kooka la kooka day ñibbi te lañ moom noom daw nangu kenn ci ñooñu ñëw fi di ñibbiwaale lu bokkut ak la nga war a ñibbiwaale loolu moo waral waxtu wu ne ci biti lay ne bu ko bi woowut ngir ñooñu ku ci ñëw mu santaane ñu yóbbu la fa nga war a ne jox la ak wàccaay ba nga war a am doo ko fexe ba sëriñ bi yëg ko loolu mission la boo xam ne bu doy waar la boo xam ne ràngoo woon na ko ñu dox dox ba euh, bi sëriñ bi bëggee daare kaamil ji am euh, ne ko man day damaa bëgg ñu dajale xaside yi waaye li ma ci jaaxal mooy kenn ku ne la nga ca yor nangu ko génne ma bëggoon nag sàkk ci mu pexe ku ma ci gëstul ba xam ne yor na ci lu doy ñu dem ma abbu ko ko bu mu yóbbu ko nga yóbbul ma ko njaareem ci sëñ Mor Mbaye Cissé gannaaw daara ña fay jàng alxuraan bari na ñu seet ña jàng ña ca mën a bind lañ abal ñu bind ko foofu la dajaleem xasida yi coono bu ne la ci sëñ Modou Mamoun jànkoonteel ci ndigalul si Abdoulaye ñuy dox ba jëmi jamono sëriñ bi ne gannaaw li fi daje bari na nañ fexe nuñ ko móole daal di yónnee fu ñox bompaar mu si móol la woon ñu nekkoon Dakar yónni fa sëriñ Samb boole ko El Hadj Modou Mamoun bañ demee waa bompaar waxaale ñoom wax leen prix ya lañ jot am. nañ koy móole. sëriñ bi fay ko. ba ko sëriñ bi fay fayee ba ba yi ñëw sëriñ bi daal taal otom wër doomi borom Tuubaa yëpp wan leen ko ñooñu kenn ku ci ne bañ ko gisee ab jël lañ ko def. sëñ bi nag ne loo xam ne jaral na sama bokk yi àgg na leen fii léegi mu doomoon kon da ngay dem boo demee ñu waxaale machine ya ya doon mool bam ne waxaale ko ñu ne nangam lay jar sëriñ bi jënd far machine ya mooy yim njëkk installé ci kër gi ba koy installé mu ne nag léegi ña doon liggéey nañ seet ka doon seen njiit lu ko kooka daan fay ñu fay ko ñettam ndax mooy tax mu ànd ak ñoom ñu daal di dem alaaji moomun waamun wax ak ko béy dina tuddoon béy di faal wax ak moom ba wax saleeram am sëñ tripéré ko trois fois mu ànd ak machine yi ñëw sëñ bi ubbi ay néegi boppam nee nañ ko fi installé buñ ko daajal ay baraak ci biti ndax su boobaa day mel ne wegeelu sëñ bi des na sama néegi bopp yii nañ ko fi yóbbu takki bagage am dem moom ca yem jàpp ne moo gën a yemamaay dugal machine yi foofu mooy loo fi njëkk a dégg ci luñ móol ba séddale ko kilifa yi nit ñi di ko jàng foofee la jógee gannaaw bi xalaat daare kaamil yi gannaaw xajutut fii kon dama ko wutal këru kaggu ndax suñu ñaanoon na ko daane alaaji mu doomu nag fii nga xam ne sélection yi boo ko moomoon fa laa ko bëgg a def mooy fii tey daare kaamil yi nekk kilifa yi fi nekkoon te mën a bind ca yooyu jamono amoon na ce benn dongaam bu ñuy wax Serigne Cheikh Jaxate Serigne Amsatu jur ko daf ko ne Cheikh damaa bëgg kaamil waxuy njëkk dugg nga bind ko ndax sa baay bindal sëñ bi bëgg nag kon mu ngi noonu sëñ Cheikh moom ko bindee junni mu saf mi ngi fi yoo xam ne Cheikh Jaxate ko bind junni junni gannaaw bi sëñ Abdou Lahad Soyebu sëñ Jilim sëñ Abdou Lahad sëriñ Modou Abib sëriñ Moustapha Saliou loolu mooy fondement wu daara kaamil ji kër bi nga ko santaane tam dafa bay at moomu mu am juróom benn téeméeri million moom sëriñ bi daal di woo suñ muur maamu ne ko lii buñ ko génnee asaka xorom sax duma ko ci mos wool Abdou Karim Fall ak sëriñ Sàmb ngeen defarlu plan boo xam ne lii lañ koy tàmbalee ku ñëw fekk ma ci ku dem ba ci loolu mooy santaane bibliothèque bu njëkk bi ci ndigalul Cheikh Abdou Lahad ci taxawaayu Serigne Modou Mamoun gannaaw bi nga xamee ne yooyu yëpp sotti na ci la ko di joxaat ndigal ne ko ab euh, bibliothèque kat lu ca manqué du lu tuddatul tuwa gannaaw gannaaw lu ca manqué tuddut tuwa te taalibe yi xaside yi la seet waaye borom xam-xam yi xam-xam la ñuy wër kon waa bëgg na ñëw dem Makka ak Midine ak Égypte lu fay téere xam-xam yoo xam ne ñooy gëstu dañ ko soxla ma jënd ko moo war a fii ne bibliothèque ba gën a rëy ci àddina ba ca asal boo fa demee téere ya fa nekk moo ne fii ñaar téeméeri mi ñoo ne njëkk a wàññi jox ko ne ko demal ca jamono yooyu ne ko nag bu ma ne mukk téere yi amul dema wax xaalis bi jeex na kon sëñ Moodu Maamun yàlla mi nga xam ne moo ko sàkk boole ko fi mu bokk liggéey loo na ko ci yoon wi ba doomi sëñ Tuubaa yëpp gërëm nañ ko waaye Cheikh Abdou Lahad ci raw ndax wet gëm gënoon a bëgg ci àddina bëgg ko gën a liggéeyal sëñ Tuubaa moo ko ci taxaw yàlla nañu yàlla tas ci barke allahumma amiin loolu doon kàddu sëriñ Abdou Lahad Jaxate moom sëriñ Cheikh sëriñ Jaxate moom sëriñ Cheikh Jaxate ci seede yu da ko doon yëkkati jëmee ko ci sëriñ Modou Mamoun Niang ñu koy ñaanal sama borom yokkee leeram xaare ko aljana te teg loxo ci njaboot gi ko loolu doon xëtu yaatu yi nga xam ne moom la ñu ko jagleeloon ci sunu tur mboolem groupe communication ci turu Serigne Mamor Mbacke moom Cheikh Mamadou Moutada ak mboolem personnel bi Cheikh xam ne ko ñu ngi ci kër gi ñuy jébbal sunu ziara sunu njaal euh, mboolem umma islamique bi rawatina yoonu murit ci loxo xaalif général te bu Serigne Mountakha moom Serigne Bassirou mbokk yi ngeen ñu topp ci rajo UCAB 14 di ñaari waxtu juróom eh, juróomi simili moo boot ci kawam ñu wéy nii. UCAB FM fii ci Touba Ndam 103.5 rajo UCAB rajo université Cheikh Ahmadou Bamba kàddu gi di bawoo ci ndam Daaru Alimul Xabiir ñu dem ba ca ndulo foofee nag ñu fa amal final tàggat yaram que ñu ko duppe woon nag mooy Dior Mbeng honorable député moom nag potoxlu na ca jafe-jafe yi dëkk ba rawatina ndaw ña la ñuy jànkoonteel mu sàkku ci ñu gën leen a taxaw waaye tam lëndamaayub dëkk ba ak yeneen ci ay ponk mbégteem fesal na ko ci loolee ñu ko tànn ngi rek dara jaale ko lu ni mel honorable député Dior Mbeng ay kàddoom ñu ko ci micro Moustapha te tey ci at mu bees mi di ñëw muy deux mille vingt trois ñu euh, tudde ma final bu toll nii di finalu FC cadet et junior ci commune Ndulo ma ci am mbégte parce que c'est la jeunesse ñoom ñoom ma ko ki kii di jeunesse di espoir kon ma am ci mbégte ànd ak jeunesse yi fas yéene leen gunge ànd ak ñoom ñoom ñi nga xam ne ñoo ma tuddee bés bi ma ci am mbégte bu baax a baax may sant la jeunesse bi yëpp di jël cant boobu di ko teg ci loxo sama frère sama xarit nekk responsable des jeunes du parti Benno Bokk Yaakaar c'est un enseignant El Hadj Adama Gaye moom moo nekk le meilleur buteur moom la ñu jox léegi moom tamit comme man ñu nekk ñoo xam ne dañuy porter toujours combat wu jeunesse bokk na ci euh, stade municipal bi nga xam ne jeunesse yi jooy nañ ko parce que sport dafa nekk lu baax ci yaram mais nekk aussi loo xam ne loisir la muy euh, mbébét boo xam ne jeunesse bi yàgg nañ ko bëgg te amuñu ko parce que euh, ñoom tamit dafa am loo xam ne dañ ko yelloo muy am espace boo xam ne seen espace bopp la ñu koy ñaan aussi bépp leader boo xam ne wala homme politique boo xam ne mën nga ci jàppale la jeunesse dëndulo Euh, pour ñu am euh, espace boobu di terrain municipal di ci def seeni activité sportive et autres loolu daal nekk na soxla boo xam ne bëgg nañ ko mais aussi soxla bi aussi bokk na ci jeunesse bi am liggéey loolu moom DG Sayer Diop ñoo ngi la koy diis nga jàppale ñu ci parce que gis nañ liggéey bu rafet bi nga ciy liggéey Jurbel gis nañ jeunesse jeunes yi ngay jël jox leen ay emploi di leen jàppale ñuy ñaan loolu mun law ba nduloo nga jàppaleen ci jeunesse Ndulo ñu am ay emploi am ci luñ jàpp parce que yaa ngi ci liggéey liggéey bu am solo ci euh, département Diourbel ci commune Diourbel mais aussi ci Sénégal wax naa ko assemblée nationale du ma taay di ko wax nekk na koo xam ne euh, ci li muy liggéey def ci laa biir di ci jàppale askan wi parce que kenn ku nekk xam ne ne éclairage dafa am solo ak insécurité bi nga xam ne am na ci réew mi donc li ëpp solo pour vaincre sécurité mooy éclairage parce que ci lëndëm ci la saay-saay si di profito di def lu leen neex donc moom su jëlee ay dëkk di dem di fa def éclairage euh, moom contribuer na à à la sécurité de la population mais aussi mettre à l'aise la population leur mettre à l'aise mooy jox leen éclairage bu doy ba ñu mën a mener seeni activité librement ma wax ko assemblée nationale stade bu Diourbel gis nañ ne le DG Sayer moo fa yóbbu éclairage bu mucc ayib ñu gis ne aussi ay yeneen ak yeneen bu dul éclairage di tout sama dem nañ euh, hôpitalu Diourbel joxe fa ay climatiseur loolu aussi lu am solo la def na ko Pikine te moo ngi ko tàmbali premier euh, kii bi tàmbali na ko mu war a première phase bi war a wër Sénégal donc loolu nekk na liggéey bu am solo boo xam ne mu ngi koy liggéey ñoo ngi ko ci tàllal loxo di ko tàllal loxo aussi ci ndulo gis ngeen ko nii am nañ maire mu ngi fi démb wax naa ko ci conseil municipal bi dañu voté budget des millions pour éclairage ndulo mais gis ngeen dëkk bi nu mu lëndamee ñu ngi ciy tàllal loxo bépp kilifa boo xam ne mën nañu ko jàppale mais aussi ñu ciy tàllal loxo bu baax la DG euh, de l'AME Sayer Diop bi nga xam ne fu mu jaar rek mu leer mu boole ci ndulo loolu doon na càkkuteef gu honorable député Dior Mbengue bu coalition Benno Bokk Yaakaar doon na ko yëkkati waaye mel ni wooteem boobe nag ah, kii di directeur général bu AMA e doon Sayer Diop ne nag jekk na ngir ñu gën leen caa mën a jàppale ne nag ñii di techniciens yi defar lamp yi sax ñu ngi ci département bu Mbàkke buñ ci paree rek danañ jogal ah, foofe conduloo ngir rek tàmbali lu jëm ci wàllu woowe li waaye itam àdduwaale na jëm ci tolluwaayu réew mi ak leneen loo xam ne kon ku jë politique yi nga coow lu ci mel ne tëggum boole ñoom seen ah, Sayer Diop lam ca feesal ñu àndoo ko tey damay am mbégte ñëw fii ci Ndulo ànd ak suma jigéen honorable député jor Mbengue à côté aussi des autorités administratives ñuy remercier le sous-préfet de l'arrondissement de Ndulo di nekk fête boo xamante ni fête bu rafet la wax dëgg yàlla boo xamante ni moom moo jar ñu dagg suñu it yëpp ñëpp xam nañ ni 31 décembre jour bu chargé la mais véritablement joor ak la jeunesse de Ndulo jaral nañu loolu kon ci biir loolu aussi ñu dégg fii préoccupation bo xam c'est légitime maanaam tey jeunesse Ndulo dañoo soxla stade boo xamante ne stade la mais stade bo xamante ne dina leen permettre véritablement talent yi nekk ci ñoom te ñu gis ko ñu mën koo euh, éclore comme ni ñu koy waxee ba tey un international jour mën a génn fii nga xamante moom mooy ndulo ci biir loolu aussi véritablement l'autorité le sous-préfet euh, wax ni dinañ fexe ba am benn terrain ñu fi nekk ay autorité aussi dinañ porter doléance bi ba nga xamante ni dinañ ko tabax waaye man personnellement en tant que directeur général de l'agence pour l'économie et la maîtrise de l'énergie ma jël engagement ni bu ñu ko defaree dinaa ba mu leer comme stade Diourbel ba nga xamante ni dafa lëndëmoon loolu daal nañ ci wàllu éclairage public bi aussi may wax ni soxlawul ñuy laajte bo xoolee sa càmmoñ ba sa ndijoor dafa lëndëm kërus waaye loolu président de la république ci biir xalaatam bu rafet ak ci biir yéeneem bu yaatu ci Sénégal indi na ci saafara ba tey lampe yi nga xamante ne ay lampadaire solaire la muy dans un premier temps deux cent lampadaires yoo xamante war nañ ko installé fii ci commune de Douro installateur yi ñu ngi ci département de Mbacké la semaine passée bi ma déggante ak ñoom parce que Dior du arrêté di ma relancer léegi nag dinañ ñoom nee nañ bu ñu jógee département de Mbacké département de Diourbel la ñuy ñëw te bu ñu ñëwee département de Diourbel dama fexe ñu commencé euh, de de Ndoulo ba nga xamante ne véritablement éclairage day nekk ci suñu ginnaaw et que euh, mën a ñëw parce que wax éclairage wax épanouissement wax activité économique mais wax aussi sécurité cour des comptes bi je pense que euh, dañ koy rafetlu rek te suñu gis-gis day dem ci gis-gisu président de la république li mu man mooy jël ay responsabilité dénk ko ay citoyen waaye nañ koy doxalee ko ku nekk sa responsabilité la kon man jàpp naa ni cour de comptes li mu def dañ koy rafetlu léegi nag dañ koy bàyyi ci loxo yoon waaye ñun suñu position mooy na yoon def liggéeyam ni mu waree ku ci nekk la nga def na nga ko leeral na mu waree pour que sénégalais yi nga xamante ne ñun ñoom la ñuy ñu gën am confiance ci président Macky tey man dama sant yàlla ndax xay na tey nduloo laa ko war a defee mais li ma gis fii xam naa ni ndaw yi ma fi gis ndaw yu engagé la ndaw yu conciliant yoo xamante ne taluñu sax di sabaroo ko fecc bay tëggi bool. tëgg bool nag lekk na loo xamante ne ni ñun du suñu aada tàngalante ñun sénégalais yi dañoo am habitude di dëkk dëkkin bu rafet ku nekk am nga euh, foo mën a waxee li la naqari waaye wax dëgg yàlla nga wax ko ci ni mu gën a rafetee ak ci ni nga xamante ne ñun noonu la ñu aadawoo kon loolu mu nekk loo xamante ñu rafetlu ko te lu ñuy ñaawlu la te xam nañ ne aussi ñoom ñi koy def it duñ ci am ndam ndaxte euh, jeunesse Sénégal bi am nañ euh, yeneen préoccupation yu dul wër gi tëgg ay bool loolu doon euh, kàddu yi Saer Diop directeur général bu AEMA e ci euh, wàllug euh, làmp yu ndulo yi ak yeneen ci matuwaay bëgg na nu koo jël wax ci nak doon festival national des arts et culture bi nga xam ne war nañu koo amal ni ki ca la ñu tànn ren ji ngir defee ko fa délégation bu ne nag yaa ngay waaj njaareem ñi leen fa fas yéene teewal amal nañ ci am jotaayu waxtaan ngir mën a xool naka lañ cay demee la ñu bëgg rek mooy ku leen jàppale ci wàllum koom ak taxawaay bi ndax kat nee nañu festival bi dañ leen jox ñaari million waaye nag nee na loola doyut ngir rek ñu mën caa waaje dem ca li nga xam ah, taxawaay bëgg na nag am ndam ci li xam kon moo di eh, jongante boobee nga xam ne doon ko amal foofee ca Kaffrine eh, kii di Serigne Cheikh Mbaye mi directeur intérimaire bu centre culturel régional bu Njaareem ca jotaay ba bañ ca noppee lam ci tënk ñu teewlu ko. waajtaayu festival bi eh, ñu ngi ci déjà tey ji lañ tase fi ak acteurs culturels yi pour créer benn comité boo xam te ne bii mooy mooy mooy waajal ñi nga xam te ne bii ñoo war a dem Kaffrine pour teewal fa. Diourbel euh, wàccaay yooyu nag euh, ci ñaari fànn lay tëddee euh, mooy il faut ñu tànn ñi nga xamante ne bii ñooy teewal Diourbel ci wàllu ci wàllu wàllu art bi donc ci wàllu musique ci wàllu théâtre ak ci wàllu danse fecc woy ak théâtre artistes yooyu faw ñu tànn leen tànn tànnin wu baax wu jaar yoon boo xamante ne bi buñ demee dinañ mën a am ndam lu ndam lu rëy rëy rëy bi si des mooy euh, jéem a wut ay ay ay ay ay ay ay moyens euh, maanaam ay ay ay moyens yoo yoo yoo yoo xam bii dina tax euh, dem bi mën a yemb donc dem bi mën a ñu mën a dem ci ci ci conditions yu baax a baax a baax a baax a baax voilà donc loolu mooy kii bi ñu bëggoon ñi nga xam te ne bii ñoo fi nekk di ay autorité territorial nekk ci euh, mairie yeeg nangam sangam ak euh, ñi nga xam te ne bii dañ nekk ci euh, politique bi ak ay bonne volonté ay Jurbel waa yom te ne bii ñu ngi fii di def teranga donc ñu ñu jàppale doomu Jurbel yi nga xam te ne bii dañ nar a dem fes nag incha allah teewal fa teewal fa de région bu Ndiarème dañ koy wax ni organisation xañ na moo demee noonu du lépp mooy yemb léeg-léeg bu njëkkoon dañu daan loger ci ay ci ci affaire yi parce que jamono boobu école yi dañ daan tëj parce que ci période Noël la la la daan doon donc euh, depuis un certain temps aussi Fesnac danay loger ci ay ay appart ay appartement wala ay ay ay kër yoo yoo yoo xam te bii kenn dëkku ca ñu ñu ko euh, pour dalal ci délégation yi ñëw voilà donc euh, kër yooyu nag léeg-léeg mu mu am ay ay jafe-jafe di nga ñëw ci kër dafa fekk ndox wala dafa fekk courant wala lampe bi yàqu na wala nangam sangam ak itam mën naa am nga ñëw kër ga taq Euh, xañ na yàgg na kenn dëkku fa ñu war koo raxasaat war koo balewaat et tout ça yooyu yëpp day am mais euh, Sénégal euh, moo demee noonu donc léeg-léeg organisation dina xat xataay boo xam te ne bii lépp du mën a yembandoo ci ci ci ci ci saa si mais ñu ngi naan aussi ba ñu demee Kaffrine xañ na fekk fa condition yoo yu baax yoo yoo yoo xamante ne bii benn benn artiste wala benn benn membre délégation bi du am lu ko naqari ci loolu. koppar gi fes nag jàppale nañu. jox nañu 2 millions euh, pour que ñu mën a waajal euh, délégation bi 2 euh, millions boobu donc daanaka lu bëri daf ci nekk mooy tenue yi nuy yi ñuy défilé ci lañ ko war a jënd ak déplacement bi transport transport bi ak préparation artistique bi donc yooyu yëpp ci lañ ko ci lañ ko nar def ñu bëggoon. tamit moo tax ñu bëgg autorités yi euh, ak Jurbel waay yëpp jàpp ci ngir euh, ngir ñu mën a nekk foofu ci ci ci ci ci xel mu dal waaw ñu mën fa nekk xel mu dal voilà daf ci am solo waaw am na nombre parce que bu ci nekk dafa am limite euh, musiciens yi neuf la ñu war a doon neuf musique donc huit artistes la ak benn manager théâtre aussi onze la dix artistes la ak benn metteur en scène bu dee danse la treize lañu ñu war a doon douze artistes lay nekk ak euh, benn chorégraphe. de de la région day doon trente cinq personnes parce que am na benn kuy def colloque ak benn euh, ak deux ak benn euh, représentant de la région ak le directeur du centre culturel. loolu doon kàddu yi Serigne Cheikh mbay mi directeur intérimaire bu centre culturel régional bu Ndiarème ci wàccaayu nag bi nga xam ne kon war nañu ko amal ca kafrin mbokk yi ngeen ñu topp ci rajo Cap 103.5 laataa ñu di ko yéen ci jàngat bi dañuy delluwaat foofee ca ñaanuk Serigne euh, Mamoun Niang gi ñu ngi koy amal euh, teewlu kàddu yi nga xam ne Serigne Mbacke Abdourahmane mi ngi ko doon yëkkati sànq ci euh, turu Serigne Ahmadou Badawi jëme ko ci mbooloo ma kàddu yi nga xam ne ko Cheikh Amar taatale na ko fa Serigne Mbacke Abdourahmane teewlu ko. mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di yëkkati kàddu yi ci ndigalul sëriñ Ahmad Badawi mi nga xam ne moo jiite daayiratu Rawdu Rayaahiin waaye jiite it mu jàmmaaw Cheikh Ahmad al Xadim li tarbiyati wa takwin nee yëkkati kàddu ci turam ak ci turu mbooloo mi nga xam ne moom la jiite ngir indi ay seere ci sunu wayjur sunu kilifa ji fi bàyyi ko di alxaaji Muhammadunil Mahmud te ay taxawaayam ràññiku woon lool ci waar wi nga xam ne ci la nekk di ci yëngu moom ak ñi mu àndal ñu xam-xam ak tasaare njàngaleem sëriñ bi yàlla defal ko tawfiq mu doon kennu gu rëy rëy ci yoon wi am ci ay taxawaay yu rafet bokk ci delluwaay yi gën a mag ak sukkandikukaay yi gën a mag bàyyil ñu fi it rëy rëy nekkoon fi nekkin wu rafet woo xam ne lépp njariñ la te li koy firndeel mooy tey jeexeet yi nga xam ne ci wàllu xam-xam bàyyi na ko nga xam ne kuy gëstu mbirum sëriñ bi faaw nga dellu ci mbindam ci jamono joo xam ne aajo woon nañ ko lool mu jeexal duna gëpp ci gëstu sëriñ bi ak tasaare ko loolu sëriñ bi nee na mi ngi koy seere waaye di seereel mbokk yépp it ne eh, njabootam gi nga xam ne ci lim nekkoon leen yar mën naa wax na ñoom ñëpp ñu ngi ci biir mbooloo am ci ay taxawaay yu ràññu ko lool sax nag doon ci ay njiit liggéey yu bari ci liggéey tey te téere yi ci mujj génn bërki dem ci la bokk la ci ëpp ñoom njabootam googu lépp ña ngi ci biir am ci ay taxawaay yu rafet loolu it sëriñ bi koy seereel euh, ñëpp di ànd ak ñoom xeexoo bi nga xam ne suñu xeexewoon di ñaan suñu borom defal ko yërmande waaye yéegi ko ci aljan yi gën a kawe Euh, taas ñu ci barkeem te teg loxoom ci njabootam ndax am na yaakaar lool taxawaay yu rafet yi nga xam ne taxawu na ko diine taxawu ko yoon wi taxawu ko mbokk yi képp ku ko xamoon rek xam nga ci moom loolu. kon nag bu yàlla dogalee mu dund li mu dund bokk ci dund yi gën a barkeelin ndax euh, daanaka dund téeméeri at juróom-ñeent fukki at ak juróom-ñeent yu tegal yàlla dafa na am na ko. te loolu ci mam ak ñu mel ne moom lañ ko doon dégg moom nag yàlla defal na ko te lépp di njariñ kon euh, ak bàyyi koo fii euh, sax fi mu mënta nekk waaye mbégte la ndax ku liggéey ba wàcc la kon yàlla na ko yàlla fayal te taas ñu ci barkeem te taxawu njabootam sëñ bi daal mi ngi ànd ak njaboot gi ñëpp nag ndax ñoom ñëpp mu ci tudd kenn mën nañu wax ne njabootam gépp ñoo nekk ci biir liggéey bi ci loolu yi nag ràññu ko ci loolu loolu la waxoon ne muy doom yi ndax njaboot gi bu ñu ko waxee rek ay doom lañ ak i jarbaat ak i sët ñëpp a ngi ci biir ay doomam ay jarbaatam ay sëtam ñëpp a ngi ko ci lool nga xam ne foo ci dugg ci biir mbooloo mi rek ña ko jiite ña ci biir ñoom muy muy daayira bi muy jàngu bee nga xam ne moom la sëriñ bi di taxawal teg ko ci loxoom sëriñ bi ak daayira bi loolu la sëriñ bi waxoon ne mu ngi koy seer ci kanam ñëpp di dellu ànd ak ñoom bis bi di leen ko jaale lii daal waxoon naa ko jot li ci turam asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. loolu doon kàddu yi Serigne Mbacke Abdourahmane ci turu Serigne Ahmadou Badawi doon rek yëkkatee kàddu yi seede ci kii di Serigne Modou Mamoun Niang mi nga xam ne kon moo wàccu liggéey ñu koy ñaanal jamono ji kon sànq la ko doon yëkkati fa fecc ñaan nga donc Cheikh Amar mbokk yi ngeen ñu topp ci rajo yi Kaab rajo université Cheikh Ahmadou Bamba Cheikh Ahmadou sax ci la ni desandi ni nu ko baaxoo altine bu jot jàngatu baay Cheikh Cheikh ma nga dellusi nag ci kàddu yi xaalis général des mourides Serigne Mountakha Serigne Bassirou li mu joxe ndigal ndigal fan ginnaaw jox takk der yi kaaraange dëkk bi baat kenn du ko bokk loolu muy tënk ba jàngatu baay Cheikh bu jot ci UCAB FM mbokk yi asalaamu aleykum wa rahmatullah mbokk yi lu xew wala lu xewati lu def waxu waaye it luy ay di jàmbat Serigne Mountakha Mbacké xalif général des mourides yàlla na fi yàgg lool ci ànd ak wér nee baat kenn du ko bokk lépp lu jëm ci sécurité dëkk bu sell bi di Touba teg na ko ci loxo yi polis ak gendarmerie naka jekk nag lépp ci seen loxo la mësa nekk te baat kenn du ko bokk sëriñ bi saa bu wax jotee dina wax mbaa mu waxlu saa bu jëf jotee dina jëf mbaamu jëflu gaar bala woon ci sanc ci mbeddum téeméeri mètre ak ñaar fukk ci lu dul yoon ba tabax ca ay étage aki barabu liggéeyukaay baat bi ñëw dindi ko tey sécurité dëkk bi nga xam ne ni mooy deuxième ville du Sénégal ñu dem ba ñu bëgg koo jaawale ak war may Touba nga xam ne ñépp la war kenn ku nekk war nga ko sàmm tàmbalee ko ci biir kër yi bu ko ñépp defee seen warteef bu boobaa du nu neex a rax kon ku newul ci li nga war a nekk ak fi nga war a nekk ku dëkk ci fudul dëkkuwaay mbaa nga tabax ci mbedd mi bàyyil xel lu mu yàgg-yàgg baat baa ngi fi nga fekkee mbaa nga bañ a fekkee baat dee su ko bokk fajal sa bopp dafa war a jeex nekk ci internet bi di wax ci tuuru yoon wi ak dëkk bi sa yëg-yëgu bopp daa war a jeex ndax baat deesu ko bokk xalaat yi mën naa bëri te wuute waaye baat kenn du ko bokk police ak gendarmerie ñoo yor baat bi ci wàllu sécurité du pouvoir nag responsabilité la rawatina fii ci Touba ñu xam fii daa wuute ak feneen ñi fi ne wuute ak ñi ne feneen yomb na jafe na waa dëkk bi jàppale leen ci sas wi war may dëkk bi nag ñépp la war boroom kër gi baat kenn du ko bokk tàmbaleeku ci sa biir kër délégué de quartier bi chef de village bi ak képp ku jiite mbooloo ndax soxla nañu ku yor yat ngir ñu sàmmonte ak war may dëkk bi nanu xoolaat sunu diggante ak sëriñ bi baat deesu ko bokk baat nag du pouvoir responsabilité la baat nag deesu ko bokk te du pouvoir responsabilité la waaye sëriñ du pouvoir responsabilité la borom kër du pouvoir responsabilité la képp ku jiite mbooloo du pouvoir responsabilité la mbokk yi bu kenn ku nekk xamee loolu li sëriñ bi bëgg ci dëkk bi dina ko am bu fekkee ne li ñuy wax sunu digganteeg moom lu wér la bu fekkee ne li ñuy wax sunu digganteeg moom ci dëkk bi lu wér la kenn ku ci nekk nag am nga ci sa responsabilité xoolal fa muy tàmbalee ak fa muy yem ndax kat baat dee su ko bokk jàngatu Baye Cheikh altine bu jot ci UCAB FM mu ngoog Cheikh Amar ñu sant di ko gërëm di ko rajo euh, euh, incha allah rabi ci beneen ci beneenuk jàngat incha bii danañ ko tollantiwaat ci sunu xibaaru guddi gi mbokk yi euh, ñu egsi ci ponk bi këmal jotaay bi li kaay yi ñu leen koy nafaral. UCAB FM. li gën fës ci yéen kaay yi. Papa Saer Mbaye. bis. simbil kàddu yi njiitu réew mi président Macky Sall fanweer ak benn fan ci weeru ko décembre wii ñu génn daanaka yenn kaay yu bëri moom la ñu xëy génn si waat kenn ku ci ne ak la nga xam ne kon ko Le Soleil yéen kaay moom ma nga ci wàllu taxaw bi nga xam ne kon fas ko taxaw néeru doole yi nga xam ne kon ñoo doon jot bourse de sécurité war nañu ko jële ci juróomi junni yóbbu ko juróom-ñaari junni yéen kaay bi xëy di xamal ne lépp rek koppare war naa toll si ñeenti téeméer ak juróom fukk ci ay milliards yoo xam kon fas yéene ko dugal rek ci li nga xam kon mooy lu ñuy jëfandikoo ko doon rek produit alimentaire yi ak lu jëm ci wàllu ko courant bi président Macky Sall yéen kaay bi ba tey di Vox Populi di xam la rek na ko bi a jàppandi moom jiitu nga xam ne kon mooy yéeneem doon projet procès yi gën a mag ci moom ba tey yéenekaay bi di enquête di xam la rek ne chantier président Macky Sall jëm na ci wàllu xeex ak nga xam kon moo di ndóol gi waaye itam jumtuwaay gën a mën a ak yore na nguur gi itam ñu gën ko mën a xoolaat lu jëm ci wàllu réalisation doon li xam ne jot na ko liggéey waaye itam ñaan yi nga xam ne ko ñaanal ko réew mi yéenekaay bi xëy tënk ci kàddu njiitu réew mi ba tey yéenekaay bi di l'info ma nga ca discours njiitu réew mi nga xam ne kon doon na ko ci yëkkati ba tey yéenekaay bi di xam la rek ne lii discours troisième mandat lanu ko mën a méngaleel ndax bu ñu ñu koy xool ñi nga xam ne ko ñoom ñoo di sénégalais yi daanaka ñu ci bëree ci nga xam ne ko kon ba askan wi gën koo bàyyiwaat xel loolee mooy ba tey yéen kaay yi nga xam ne ko loolee moom jiitu na ca lu bëri ba tey ma nga ca réew mi taxaw na ko ca ngir rek te ñii di askan man koo déglu ba tey lu jëm ci wàllu ko ñetteelu candidature bi nga xam ne kon ñu bëri ñu ngi ko ci doon séentu yéen kaay bii di xam le rek na ñu bëri ñi nga xam ne kon ñoo ko doon xaar xaddi nañu ndax dégguñu ko benn yoon ci message doon kàddu yi nga xam ne kon yëkkati na ko ca ba tey yéen bi di xam le ne kàddu yi ci ndorteel at mi nga xam kon njiitu mi doon na ko cay yëkkati la ca ëpp rek ci lam doon wax mooy ab bilan doon li nga xam kon moom la fi jot a liggéey waaye tam perspective doon li nga xam ne kon mooy ab jubluwaayam loole nag lañ fa jot a déglu Walf Fadjri quotidien xëy di xam le ne nga xam ne kon fesal na ko lu jëm ci wàllu taxawaay bi nga xam kon gis nañu ko ca su naataango yi ñoo xëy di xam le rek ne naam mi ngi doon wax rew am na ñoo xam ne kon bés boobee déglu wunu ko daanaka tëggum bool lanu gonto yéenekaay bi di fàttaliwaat concert xam ne kon waaye Yewwi doon nañu ko ca woote su naataango yi xëy di xamal rek ne jamono ji nga xam ne kon njiitu réew mi mi ngi doon wax ak askan wi waaye Yewwi Askan Wi ca lañu woote ñoom itam ngir rek te gumbool ba tey yéenekaay bi di xam le ne concert de casserole bi nga xam ne kon def nañu ko ca ñii di conférence des leaders bu Yewwi Askan Wi ñoo ko woote woon yéenekaay bi di xam le rek ne buñ sukkandiku ci Walfadjri lim bu takkoo takk ci ay doomu aadama ñëw nañu wuusi leen ci quartier yu bëri yoo xam ne kon ma nga ca Ndakaaru daanaka cooli foo demoon rek yaa ngi dégg kandang kandang ji nga xam kon kon doon nañ fénqale bool ak cin yi yéen bi xëy di xam ne boole ceeg nag klaxon doon cornet oto yi nga xam kon ko caa ko lañ ca doon séentu amuñu ko ca ndax ba tey yéen kaay bi di xam le ne ak lu ci wàllu concert de yi daanaka nag bu ñu koy xool li nga xam kon moom moo di askan wi ñoom kenn ku ci nekk rek

nga ca tëggum bool doon concert de casserole bi nga xam ne kon ko ca ne nag luñ ci ba di nemmeeku nag lu jëm ci wàllu taxawaay bi nga xam ne kon ah, taxaw nanu ko ca loolee doon loo xam ne kon diggante nguur gi ak ku jógi ah, ku ne wane nga ca bopp ba tey mbirum soxna Amy Ndiaye mi nga xam ne kon député la ci pencum ndaw réew ma yéen kaay bi Dakar Actu nekk ci internet bi moo xëy dunu xamal ne ginnaaw bi nga xam ne kon ah, fitnaa nanu ko ca penc ma ñañ ci du doon Massata Samba ak Mamadou Niang ñoom nag xam nañ seenu ëllëg ndax nag tey ji dogal ba wàcc na yoon daan na leen juróom benn weeri kaso yoo xam ne kon danu ko cay tëdd yéenekaay bi xëy di xamal nag ne yamu ca bokk na ca lu ci ma ko taxawaay boo xam ne kon ñoom ci boppam nag am nanu ko ca ki nga xam ne kon moom moo di moom Massata Samb ak Mamadou Niang ñoom nag am nañ kon juróom benn weeri kaso yoo xam ne kon dañu ko ci tëdd boole ci juróomi million yi yoo xam ne kon ñoom ci boppam dañu ko war a bokk fay ko ki nga xam ne kon moom moo di Ami Ndiaye yéenekaay bi di xam la rek ne lii di tribunal nag ñoom ci boppam nag li nga xam ne kon moom la bëggoon moom procureur ñaari ati kaso waaye nag tribunal bi ñaari juróom benn weer kon la leen mujj daan ba tey bi bi xëy di fàttaliwaat li nga xam ne kon moom ba di mbir bi naka la demoon emedia point sn di wax ñeneen ñoo xam kon ña ngay kalaame mooy ki nga xam kon moo di Guy yi ne nag coowal compte cour des comptes bi ba mu xewee ba léegi gisuñu ci kenn ku fa ñëw te nag la bëgg mooy nañu fa ñëw nañ leen arbitré àtte leen ci li nga xam kon moo jëm ci wàllu wi ngir rek ñu mën a dikk leeral yéene kaay bi xëy di xam le ne Aminata Touré ak Guy Marius Sagna doon ay député yu nekk ci pencum ndaw réew ma ñoom nag dem nañu kalaame ji ñu ñëw rek ca penc ma ngir mën a waxtaan ak député yi ci lu jëm ci wàllu ko coow li ban taxawaay la ñu ci am lu jëm ci wàllu trafic ko passeport yi nga xam ne kon la mel ne réewum Sénégal yéen kaay bi di igfm point sn nekk ci internet bi moo xëy di bi di xam le rek daanaka mbirum trafic passeport yi moom jeexalugu ci woon sax ci gëstu ga l'observateur yéeni xam ne kon tudd nañ leen ca bokk na ca mag ki nga xam ne kon moom moo nekk ca bopp ba xarit jata tanjon yéeni kaay bi di xamle rek ne moom nag nekk ca ASEPEX moom nag bokk na ci ñi nga xam ne kon ño ngi ko ci wër yéeni kaay bi xëy di xamal ne kay mu toll ni ministère affaires étrangères kay coow la bëri na fa lool yéeni bi di xamle ne jamono ji ñu ngi luñ bët fu ne ngir mën a xam kenn ku ci noonu noo ca taqee ba tey yéeni kaay bi moo xëy di nettali rek ne jamono ji moom faaw ko ca leeral la jeexale ko soxal taxawaay bi nga xam ne kon moom la ñu nemmeeku li nga xam ne kon moom moo di taxawaay bu làmb bi démb ji ki nga xam ne kon moom moo di yaay Boy Niang moom nag ma ngay xam leen li nga xam ne kon moom moo di taxawaay bi nga xam ne kon doomam taxaw na ko ca lu jëm ci wàll ndam li nga xam ne kon am na ko ca mu doon bëre bu doxoon ci diggante Balla Gaye 2 ak ki nga xam ne kon moom moo di Boy Niang Balla Gaye kii di Boy Niang 2 daan ko jël bu set wecc mbokk yi ni kayangoog dig du jëlëg inshaallah UCAB FM li gën a fës ci yéene kaay Papa Saer Mbaye xibaar yi fii ci UCAB FM Papa Saer Mbaye Pape Saer Mbaye Thiam du kaay gi ca machine ba Cheikh Baye yéen askan ci déglu bi rajo UCAB ngeen ko déglu rajo université Ahmadou Bamba xibaaru digg bëccëg yi laata ñu tàggoo ñu fàttali leen la ca gënoon a fës. groupe de communication. université Cheikh Ahmadou Bamba. bokk na ca la ca gënoon a fees sa mbokk yi mu doon wàcc liggéeyu ko Serigne Modou Mamoun Niang doonoon ko ràññe woon noonu la ko denc ci baaxee di ko ca ga ak ci wàllu ko ñaan ga jot ngeen teewlu sax leen ci ay seede yooyu ko ca taataan la nga xam ne kon jot nañu jottali lu soxal finalu football bu doon noonu ko amal la ca dulo ke ñu ko dara jaare loon doon député Diokh Mbengue moom nag potoxlu na ca ngir sàkku ñu gën a taxawu ndulu ak ay jafe-jafe bokk na ca lëndëm ga ñàkkaara ga xale yi ñu taxawu leen waaye tam lu jëm ci wàllu lëndëm ga moom kii di Sayer Diop mi jiite AMER moom nag nee na dañ leen ci jàppale yoon ngeen teewlu seen ay kàddu ci biir jotaay ak xibaar yi fes ñu ngi waajal dem ba ca Kaffrine lañu tànn ren ji ngir defe ko fa waañ jaareem naka lañ cey demee tax nag ñu amal ci am daje ngir waajal ko lu jëm ci wàllu li soxla nanu dimbalu ko ñii di askan wi kilifa yi ndax na naan fes ma nag fes bi ñaari million lañ leen di jox waaye neen loolu jàpp jot ngeen teewlu uh, kii di Serigne Cheikh mbay mi uh, jiite uh, centre culturel régional ba ca Njaareem jàngatu Baye Cheikh ak li gën a fës yéen kaay ñoo këmmal jotaay bi di sant gërëm ñëpp ñu àndoon ak ñoom ci 103.5 di téeméer ñett yu tombal juróom wala sax ci internet ñett bu point a 2 itv net yeneen xibaar incha allah rabbi guddi lay doon 20 heures euh, rédaction bi leen ci joxaat daje ñu ñaanal ñëpp jàmm di ko ñaanal suñu bopp buur laaw moom jàmm te ku mu jàmmal nga jàmm yàlla na nu defal kenn lu jàmm jërë ngeen jëfati mbokk yi ñu bàyyi leen ak sunu ay programme waxtaanu Serigne Sam Mbaye mooy ci